La ah, formation est baax te que aussi parce que nous ñuy jàngal loo xamante ni nous koon te xamuñu en plus aussi la présence de suñu professeurs et tout ça euh, ah sommes des ci qui lu bëri moom li nous xamul sax. ñu continuer ko euh, pour ñu continuer parce que si suñ ko continuer nii élèves ont dañuy motivation. Si nous avons une motivation pour def au futur euh, il y aura des géologues et aussi ah développement di Sénégal de notre pays. bu ñu waxee géologie rek mooy di jóge ci suuf si mu wuute ak gàncax bi ñu doon jàngale donc euh, loolu di jóge ci suuf si maanaam suuf mooy ndeyu mbill yëpp loo gis gàncax bi ci suuf la jóge donc li ñuy tabaxee ci suuf la jóge donc li ñuy defee tali yeeg immeuble yeeg yëpp ci suuf la jóge ba énergie ak pétrole ak gaz ci suuf lay jóge donc suuf dañ ko waroon njëkk a jàngale balaa ñooy jàngale gàncax bi. Nous sommes contents ñu ñu euh, visite depuis le ministère nous pour partager avec nous, pour nous nous, pour nous a ak élèves parce que énormément de possibilités. ci possibilité amna métiers yu yu euh, Sénégal donc maanaam pétrole ak gaz fu mu am rek donc foog am ñu ñu war a tàggat pour ñu mën a liggéey ci domaine fànn boobu sinon étranger yi ñooy jóge feneen ñëw liggéey suñu réew te ñu am ay ressources humaines am ay qualité am ay nit yu xarañ yu waroon mën a ngir mbi moom pour le développement du Sénégal. Nous lu ñu pour que nous bi entre l'école et ministères surtout ces ministères spécialisés qui xam ne spécialisé ci mbirum ak donc vraiment recevoir pour que nous puissions élèves pour que élèves yooyu mën a am pour gagner a domaine bobu parce que Sénégal dafa toll foo xam ne fii donc il y a nañu ay ressources yoo xam ne ci wàllu énergie ak ci wàllu mine ay fer ak yu demee noonu yo xamné yi vraiment lu bax la donc te xalé yi ñom ñu ëlëk ñom ñoy ëlëk donc buñu ñu leen commencé di di di waxtaan ak ñom ci lolu di leen tàggat ci lolu bu ëllëgee ñom ñokoy gérer donc servir sen réew donc et pour lolu nak il faut que ñu préparer len préparer len mënul tàmbali lu ci école donc motax may ñaan ministère mine ak géologie vraiment ñu gëna a école donc di ñu jàppale ci matériel yi nga xamné dañ koy soxla pour tagat xalé yi donc parce que ñom yor nañ ay ingénieur yor nañu ay spécialistes yo xamné war nañ mëna couvrir Sénégal

pour que bu ëllëgee ñu gérer ñu li nga xam ne li moom lañu suñu borom jagleel muy loo xam ne lii àddina bi yëpp ko soxla donc mu feeñ Sénégal ah mu war a doon nag njëriñ ci ñun